waaw ñëw nañu comme ni ñu ko demandé ñëw nañu participer ci tirage bi nga xam ni moo amoon tey tirage bi joxe ban ordre lan la jox pour nga déposer tey Yewwi Askan Wi septième position lan ko jox septième position boobu nag di wax rek ni du ordre définitif parce que ordre bi nga xam ni mooy définitif mooy ordre bi nga déposer réellement moo tax ordre bi c'est un ordre provisoire et eh, ci loolu moo tax tout à l'heure bi may wax ak ñoom mën leen bu fekkee ne ordre bi li ko taxoon jóg mooy pour ñu respecter ordre bi nga xam ni moom la ñuy analyser vérifier parrainage loolu moo ko taxoon jóg pourquoi nit bu respecté wul dépôt liste yi waxtu boobu pourquoi ngeen war ko reléguer dernière position ça veut dire que donc ordre bu provisoire la dina effectif que bu fekkee ni déposé nga ci waxtu boobu alors que tout le monde sait que ci état-major politique yi déposer le premier jour c'est rare nga gis coalition bu koy def coalition yëpp en général dernier jour la parce que élection législative ay réglage la jusqu'à la dernière minute vous en avez l'expérience donc ceux yi nga xam ne tey jox na leen benn ordre bu ñu ñëwul ci jur boobu on vous dit ki mujjoon place léegi ordre boobu définitivement ngay am cest à que donc yeewi bu ñëwul suba septième bi da koy perdre bu ko defee nekk à la vingt cinquième position et ordre boobu finalement mooy ordre bi nu utiliser pour contrôler parrainage donc in fine le tirage au sort la nga xam ni pour respecter ordre parenage moo ko taxoon jóg tu peux te poser des questions lan moo doon njariñ bi alors Benno Bokk Yaakaar déposé na démb loolu li ko indi mooy opposition bi am ci ñaari article yi nga xam ni ñoo ngi ci loi bi wax naa ko léegi cent quarante neuf ak cent soixante seize parce que cent quarante neuf day wax ni à partir du trois mooy depuis avantière commission bi teg nañ ko en place et bu ñu ko tegee en place booy ñëw di notifier mën nga déposer say pare mais loolu bu ñu ko waxee ba pare article donc bi ci topp di cent soixante seize ñu ni pour le dépôt da ngay déposer en même temps ce mot-là existe. En même temps, la liste des parrains et tous les autres dossiers. Donc bu ñu waxee ni en même temps nga ko war déposer et loolu ñun entre quatre-vingt-troisième jour et quatre-vingt-cinquième jour muy entre le six et le huit ñu wax en même temps nga ko war déposer pourquoi kon nga war déposer avant comme ñële dangay ngay déposer pour ñu gardeel la rek gardeel boobu nag mooy problème bu rëy bi parce que Benno Bokk Yaakaar bu demee ni déposé na parrain pour ñu gardeel ko mais qu'est-ce qui nous garantit que kenn du utiliser parrainage am comme référentiel ci logiciel bi nga xam ni moom la ñu war utiliser pour traiter tous les autres parce que c'est un traitement informatique vraiment très simple très avec le président Macky Sall dof dëgg mooy toog naan sa xel dal la avec le président Macky Sall dof dëgg mooy tëdd ci lalam naan sa xel dal la avec lui ki nga xam ni dafa toog jàkkaarloog askan bi yëpp ni pare naa ci njuuj njaaj mooy mi ngi woon ci njuuj njaaj donc ku nekk ci njuuj njaaj mënoo ci pare aussi donc avec lui il faut être extrêmement vigilant nous restons vigilants déterminés vraiment avec la coalition Yewwi Askan Wi def face parce que tey wax ngeen ko mooy la coalition du peuple et tout à l'heure yéen a ngi naan ñun ñoo jàll avant la coalition Benno Bokk Yaakaar ci ordre provisoire bi effectivement classement boobu lañu Sénégalais jox ñu leen di gërëm di leen sant merci.